jërëjëf ndaje bi li ko waral mooy euh, comité interministériel de lutte euh, contre la migration irrégulière bi nga xam ni moom laa jiite te euh, ministre de l' la sécurité publique nekk ci ci ci kaw moo ñëw tey woo ñëpp ñi nga xam ni dañuy xeex ci mbëkk mi muy ministères yi ndax bari na lu mat ñaar fukki ministères yoo xam ni ku nekk am nga pàcc bo ci bo boo am ci xeex bi ak euh, yenen structure yi nga xamni ni euh, ñoo ci nek té euh, muy force de défense et de sécurité yi ak les acteurs ñu bokk ci ONG yi yenen acteurs yi ak li nga xamni ci association de migrants ndax dañoo japp ni xeex bi nekul lo xamni comme li ñuy wax rek ben structure ko it ñoo ciy jàpp et moo tax tey ñu woo leen ndax dañoo silmi dafa defar stratégie nationale mooy yoon bi nga xam ni euh, moom la ñuy jaar pour que d'ici dix ans ñu man ko wàññi bu baax ak sax même ci mu jeex taal donc loolu mooy stratégie bi stratégie boobu nag mu am ay jéego yoo xam ni dañ ko war di def chaque jour chaque semaine chaque mois chaque année ba mu mat trois ans loolu mooy plan d' action bi plan d' action boobu aussi lañ ñëw ñu ne dañuy séddoo ak ñëpp bi ak plan nekk xam chaque jour chaque semaine mois année. voilà euh, xam nga euh, xeex bi dafa nekkoon loo xam ni rek euh, ministère yi ku nekk dafa am loo ci pàcc boo ci yor di ko doxal te keneen ki yëgu ko keneen ki xamu ko donc kilifa bi bu nak notamment le président de la république euh, ak gouvernement am li ñu ne dañuy def euh, desal benn structure bo xam moy comité interministériel bi nga xam comité bobu nak mom moy mom moy yor euh, di coordonner lepp li nga xam ne moom ministère yi di def pour que li xeex bi man ñu mën ko man ko man ko jaarale fo xamni dinañ mëna objectif yi nga xamni mom le autorité yi ñu assigné dinañ ko mën a dinañ ko mën a atteindre léegi nag foofu dafa am euh, non seulement ministères yi mais am na aussi ay agence yoo xam ni ay financement la agence yoo xam ni ay encadrement des jeunes la muy ku mel ni ANPEJ 3FPT DER ñooñu ñëpp dañuy bokk ci ci ci ci lutte bi pour mën a fexe ba euh, jeunes yi euh, seeni projet ñu man koo ñu mën leen ko financer man leen a pour ñu mën koo